moom président Serigne bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax di la sant dila gërëm ci ñëw gii ngi fi ñëwaat tey te fas yéene itam ni moo ko waxee ma jéem sama kemtalaay kattan ngir jottali li nga xam ne wax na ma ko mm-hmm. ndax mu tax waman kazaba alayya mutaamidan falyatabawwa maqaadahu min an naar kon nit lépp lu muy wax ci àdduna nag war ko mën a seere ngir ëllëg kon Serigne bi nee na mi lay sant di la gërëm bu baax a baax cant gi itam nag nee ci sa jëf la ko teg ndax njëkk muy toog ci jotaayu Serigne Touba bi naka jëkk ëmbal nga ko cofeel àndal ko ëmbal ko ak fonkeel jël sa lépp jox ko ba mu xam ko lépp loo xam ne itam mas nga koo xam ci yitte joo ne lu ko jege la def nga ko kon moom nee na naka jëkk dangaa dëkk ci di ko teral kon neena na nag teraanga jooju nga xam ne moom nga ko doon teral Serigne Touba rek a tax. nee na nag moom nam la ko waxee woon rek daanaka amu ci lu mu ci dolli wala lu mu ci wàññiwaat ndax euh, loolu naa am tuuti lu ma ci leeral bala maa jeexale ci kàddu yi nga xam ne moom la ma mujj waxaat démb ne naa la ko waxaat. fii nga ñëw na sam xel dal bu baax ndax Serigne Saliou Mbacké waxoon na ne euh, yaakaar ñu tas miinu yoonu kër Serigne Touba. kon nag bu fekkee yàlla dafa def nga ñëw ci moom ñaanoon ko nit ne ko bu ma mooy ubbi campagne ñu tàmbalee ko fii ci yow nga ñaanal ma ma dem ci barabu Sëriñ Tuubaa door a tàmbali la yëf ci mbirum àdduna ma def ko mu nangul la ko keroog ba ngay ubbi Ila Touba bi kon nga defewaat ko noonu loolu itam kon na sam xel dal ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne nee képp koo xam ne ñëw nga ci man te dara yi àdduna taxul a jóg suñ borom daan la boole ci ñëm ko gën a jegal képp koo xam ne dangaa ñëw ci man ngir àdduna rek suñ borom daan la teral diirub sa dund moo tax dafa waxoon Cheikh Abdoulaye Mbacké dafa waxoon ne Serigne Touba dafa waxoon ne ñi fi ñëw yàlla suñ borom dama koo liggéeyal ba mu fay ma àdduna ma teg ko ci sama biti loxo moo tax képp ku ko fi sàkku si ku ne danga ko am daal di wax ne ñii fi ñëw ñaar rek la koo xam ne àdduna la indi ak koo xam ne àllaaxira la indi nee ñaar yëpp nag suñ boom jox na ma ko te doyu ma ko dara ki ma jaaxa daal mooy ki nga xam ne ni ma yàlla def neexu ko kon nag waxoon na ne am na naar bu ko waxoon ne ko seex minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu la leen tax a jóg ñii ala Sëriñ Tuubaa ko ne ko wa inna lana la laaxirata wal uulaa am na fi ku ko sàkk fi mi ngi fi alaaxira mi ngi fi ku ko sàkk fi am ko fi kon nag na sam xel dal bu baax a baax te xam ne képp ku fi nekkal Serigne Touba waxuma la lum ñaan wala lum bëgg waaye lum la yéene rek suñ borom daal la ci dimbale te moom ñëpp xam nañ sa yéene ci moom ndax waxoon na ma ne ma naa la wax ne la xam na lii sa yéene mooy yéene ji nga am ci réew mi nga mottali ko nee na kon nag moom faw li nga ko sédd ci boppam mooy mu ñaanal la yéene ji nga xam ne am nga ko ci réew mi yàlla kàttan na la ba nga mottali ko waxaat na ma it ne ma naa la wax ne moom sëriñtuwaar rek bëggut dara Serigne Touba rek la am moom rek la bëgg. Serigne Touba mi ngi ko jébbal nag kenn du ko ko jébbal di am ci ko lu ko naqar rawatina jëmam ji kon nag booy wasam xel dal te sa njort rafet te mu wóor la ne li ngay sàkku moom ñaanal la la ci te xam nga ko kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi.